ci ndigalu Cheikh Mahi Ibrahim Niass xalif de la Fayda Tijaniya ak Cheikh Kabir Dem xalifay njabootu Thierno Hassan Dem le daayira jamaatul kaasif ci njiitalu seen sëriñ Mawlaaya Cheikh Baye Mouhamadul Fofana ñu leen di yëgal seen jàmm bi ñuy amal at bu nekk ren nag mu yemook le samedi 13 juillet 2024 ca Sébi-Ponty programme bi nag ñi la fas yéene tëddee li ko jiitu le dimanche 7 juillet dañuy amal set setal bu mag di ci woon a mbokk taalibe yi yépp rawatina mbokk julliti bu le 12 juillet dañuy amal big Mega tu juma suivi de zikr ca Nous avons dañuy programme ba le samedi 13 juillet bu 9h amal 20h mise en place 21h zikr Nous koy taxawee di Babacar Faye fils de ndaw Zakir ak Omar Zakir 23h bu jotee amal conférence bi ki koy di Demba Tijani 20 h comme le programme banque le samedi 13 juillet 2024 ca Sébi a le le daayira Jamaatul Cassif, le miroir de la Faïda.